dal leen ak jàmm mbokku internet yu seen football tv nuyu naa bu baax jeex leen di am mbégte saa su ne leen émission bi ngeen taamulal bëgg ko muy rubrique découverte tey rubrique découverte day doxantu fële ci États-Unis andi leen suñu gaynde bi tudd Alsan Ales Diouf nañu si naan générique bi te ñëwaat Euh, nuyuwaat naa leen yéen samay internet wax leen émission bi ngeen tàmm temps yëpp yéen a ngi koy bind ci commentaire pour mu ñëwaat di rubrique découverte ngeen sopp ko bëgg ko tax na leen wax ngeen di ko partagé euh, pour ñi xamante ne nag ñoo soo gis chaîne bi maa leen di wax ngeen abonné euh, cliqué si cloche boobu ngeen di gis vidéo bu ñu dugal rek ngeen mën ko sitaan ba ñu fàttee joxe seen xalaat ci commentaire yi te seen rubrique découverte day doxoon fële ci États-Unis an li leen suñu benn gaynde bu tudd Alassane Alès Diouf pour ñi nga xamul Alassane ale Diouf mu ngi juddoo 24 mars 2000 ça veut dire que jamono bi mo ngi am 22 ans mo ngi juddoo fi ci réew mi Tëngéej mom nak ci taxaway mën nañu wax ne day mesurer 1 mètre 88 maanaam jollo poste milieu terrain mën nañu wax ne nak pied forum droitier la milieu terrain buñ ko waxé numéro 10 mais mom nekk na ben joueur bu xamante ne voilà dafa polyvalent ba tax na mën na jouer poste yu bëri mais fële ci États-Unis relayeur la ñu ëpp ñu koy utiliser ak numéro 10 moom nag jaar na ci ay équipe yu bëri laataa muy nekk si équipe bi mu nekk nii di ko toj bu baax a baax a baax di Santonio football club ku ne Sant'Agno nag xel day dem peut-être ci basket bi mais seen équipe euh, moo ngi nekk deuxième division États-Unis boy bi nag 2018 2019 moo ngi nekkoon Orlando Academy bu mu fa jógee si la demee Orlando City donc entre Academy bi ak euh, City bi yëpp da ko doon bagante la mëna wax parce que dañ ko doon def près pré près bi mu fa jógee on peut dire que l'année 2019 2020 jaar na Montevi académie aussi tamit foofu aussi si la wone talent sax d'ailleurs libre si lañ koy jëndee eh, lii di bol de football club bol de football club ni am na beneen naaka naataango wala mbokk sénégalais bu fa nekk ñuy wax Omer 6 Omer 6 boobu sax d'ailleurs moo ngi jógee eh, si si kii Salif Diaw bi mën nañ wax centre Salif Diaw bi xam yor na ko tëngeej mom nak fo war def ay prestations yu am solo on peut dire que euh saison bobu carrément que ça soit dribble que ça soit but ci bopam euh 38 matchs 5 buts 5 passes décisives nek ben joueur bu xamante na change nek na club Cerro Porteño euh, football club d'ailleurs sax jël nañ fa trophée euh deuxième division bo xolé euh, ci talent amna ben ben ki la mëna wax ben statistique wala ben site bu xamante américain ñoko mom ñukay ñu koy wax Kiwin Scout maanaam lépp lu xamante ne ay talent yu nekk foofu ci États-Unis dañ leen di génn wax li ñu mën li ñu war a progresser bi ma demee la laa fa gis gis naa ne booy bi dañu wax ne dafa mën a dafa am vitesse maanaam daa gaaw euh, mën na dribble intelligence de jeu da ko am ba pare dafa créatif donc lii du mel benn benn benn site la bu xamante ne fa lay c'est États-Unis la nekk di génn ay jeunes moom la génne lii xamante ne dañ ne da ko war a travailler surtout benn sax laa gis laa mën wax mooy finition maanaam yenn occasion yi nga dugal ko donc loolu lu mu war liggéey la mais li mu leen wax nii euh, am na sax yeneen yu ma bàyyi euh, créativité bi dañ si wax lu bëree bëri xam donc c'est un joueur assez intelligent moo tax ñoom dañ koy teg comme numéro 10 te gis ngeen genre poste yooyu dafa xaw raar moom aussi tamit à savoir que mën na jouer sax sur les côtés yéen a ngi seetaan vidéo bi nii actuellement gis ngeen nga lu ne ci côté bi lay nekk day percuter day dribbler aussi boo xoolee si ay essais yoo xamante ni génne nañ ko début bi li mu gën a wane euh, sur le plan défensif ça a été très intéressant pour un joueur bu xamante ne dañoo gis ne pour rapport à tes qualités ci kaw nga war a nekk donc bon tacleur day gagné ay duelam assez physique comme niñ ko waxee taxawaay bi may nekk loolu boo mesuré un mètre quatre vingt huit ça veut dire que am nga benn taxawaay bi donc c' est des joueurs yu xamante ay sénégalais lañ ay doomi réew mi. c' est des boy yu xamante euh, war na mën a intéressé suñu coach bi Demba Ba maanaam de. c'est des boy yu xamante ne war nañ mën di intéressé euh, suñu coach bi ki yor U23 bi moo tax ma gën a sawar def genre vidéo yi parce que moom day liggéey si genre yi moom day dem xool ci net bi joueur sénégalais foo nekk rek xam a rapport ak sa âge euh, ndax man na la convoqué mu woo la waxtaan ak yow nga ñëw comme ni mu ko defee bi passé ay sélection am nee noonu la ko defee dafa dugg si benn site euh, site boobu man d'ailleurs sax xam naa ko jël ay sénégalais yu bëri andi ko mais mënul xam ñëpp comme ni mu ko defee si benn interview donc euh, il faut que ñu aider ko donc lépp lu mën a aider suñu coach boobu maanaam suñu U23 pour yenn boy yi mën fa dem ñu am talent nag moo tax may wax euh, genre vidéo yu day baax ñu def ko bu baax ba en tout cas c'est un jour boo xamante ne man franchement euh, gis naa vidéo yi gis naa dribble yi man dal na sama xel pour benn progression et que boo ko xoolee xam ne xale bu ndaw la et que gis nañ ne football yi dafa avancé il suffit juste ngeen xool américain yi coupe du monde bi ngeen gis ne football avancé na même ñoom seen football dafa avancé donc boo nekkee doomi réew bi nekk fa di dafa def ay prestation ba jël fa trophée mérité nga ñu defal la découverte mbokki li mu nekkoon découverte Alassane Alès Diouf ci commentaire wax leen seen xalaat ak seen gis-gis dem suñu leen plateforme Facebook Twitter Instagram TikTok bo leen seen football TV incha allah di ngeen gis suñu logo bi maa leen di jaajëfal di wax ba beneen sur football TV.